ñi jub yeneen i élection ñi ngi jubit yeneen i élection di législative yi di takku taxaw rek takku taxaw liggéey liggéey bu rëy bàyyi wax wax ji continuer rek continuer rek. sëgg rek sëgg rek. bañ a siggi ndax boo tegoo ci yoon. ndax boo tegoo ci yoon. bëgg am foo dem. bëgg am foo dem. Sidi Ahmed topp la Sidi Ahmed topp la. sànni xeer sànni xeer. di la ëyu di la joor di te fu ma la jooroo fu ma jooroo. nga bëgg a geesu nga bëgg a geesu. <laughs> ne lu bari da lay rew yeneeni i tëralin nag. yeneen i tëralin nag. yu ñu mën a tëral. yu ñu mën a tëral. muy démb. muy démb. muy tey muy tey. muy ëllëg muy ëllëg. te losigul. te losigul. ça passe allahu taala. yàlla pare na démb. yàlla pare na démb. pare na démb. lii occasion la. nee lii kat occasion la. da ngay génne li sa xol. da ngay li ci sa xol. te yàlla tax. te yàlla tax. mooy dëgg. te mooy dëgg. allahu. nee na yàlla. huwal xaq mooy dëgg. wal xaq dëgg nag. wallaahu mooy yàlla. nga génn. nga génn. balaa ngoon. balaa ngoon. ñu tàmbali. ñu tàmbali. di la menacer. di la menacer. lu nekk ñu jéem la ko wan lu nekk ñu jéem la ko wan. kenn la ñu ragal. kenn rek la ragal. muy subhaanahu wa taala mooy suñu borom tabaraka wa taala. suñu dépense suñu dépense. bu yemee ci mbaxal ndox yemee ci mbaxal mbaxal ndox. guuxu ndox guuxu ndox. sant nañu yàlla nañu yàlla. ku am miswi ku am miswi. yal na ko yàlla yokkal yal na yàlla yokkal miswi ba. nañ fexe ba dëggu rek fexe ba dëggu rek. ci suñu biir ci suñu biir ak suñu bopp. dëggu dëggu nag. ak njaboot gi yépp dëggu ak yéen nee dëggu ak yàlla loola mooy li am solo waaye kuy def kuñ ne xuux nga ne woy fu ma jëm yàlla ne na acam dara dàquñu nee kon nag kontaan nañu bu baax nañ bu baax nee ñu baal ko xaq ni nuyu nag presse bi muy télévision yi ndox eh, waaw ndox TV muy ndox TV mi ngi nii. tubaarakallah waaw suñu eh, boobu nag suñu télévision bopp la. te ndox nag. ndox nag. ndox ci la lépp nekk. ndox ci la lépp nekk. xam naa beneen yoon. beneen dafa xaw a gàtt. dafa xaw a te sonn ngeen. waaye seen turu coalition. bi. Yewwi Wi Yewwi Askan Wi. eh. eh. <laughs> Yewwi Askan Wi nee Yewwi Askan Wi. démb démb. ci suñu suñu rek. nee ci suñu copte rek. wéet nañ ci ak suñu borom. wéet nañ ci ak suñu borom. di xoolaat tur wi. di xoolaat tur wi. di chiffrer mots yi. di chiffrer mots la di chiffrer ah, xool ko xoolaat ko. xool ko xoolaat ko. waaye mani. waaye mani. waaw lii ko xalaat. waaye lii ko xalaat. ñu koy jiñeent ñu bari xalaatuñu loolu. ñu bari xalaatuñu loolu. séentuwuñ ci loolu. ci loolu. waaye mbir la de. waaye mooy lan la mbir la de. yeewi askan wi. askan wi. dafa am chiffre bu mu tombeel ci. te chiffre loolu chiffre la boo xam ne. lépp ijaaba la ak xabul nangu la goo xam ne awaa ngay nangu sax yàlla kattanu la far jëlal ko bopp su ci doxee nee su ngeen ci doxee ah. su ci doxee su ngeen ci doxee dox ànd ak day dox ànd yéen incha allahu ah, taala ah li jaaba dox ànd yow xabul it da lay gàttandu du ma ni yàlla na ngeen ko muurloo du wax ne yàlla na ngeen ko muurloo de yàlla nañ ko bokk day wax ne yàlla nañ ko bokk muurloo ko ci barke yonent bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa te lépp luy ay moyen yàlla na leen ko yàlla màngal lépp lu leen xaaru yàlla na xaddi ci barke yonent bi sallallahu luy mucc luy kaaraange luy yokkute yàlla leen ko yàlla defal incha allahu taala defal ko njaboot gi yépp def ko ci réew mi it ñu bokk ñaan itam lii xew ci anti ak lii xew ci Russie ak Pologne. waxuma la fan la. Ukraine bu ko kenn xeeb bu ko kenn buñ ko xeebee rek buñ ko xeebee rek dina nekk musiba mbabba kumba te te musiba mbabba kumba baaxul. yal nañ ci yàlla boole musal. yal nañ ci yàlla boole musal. yal na ci yàlla wis ndox mu sedd. yal na ci yàlla wis ndox mu sedd. fi may tëjee ne fi muy tëjee nag. réew mi nekk réew mi ñu nekk nu mu tudd Sénégal. nous sommes des sénégalais kon. ne ay sénégalais lañu. kon France wala beneen pays du ñu ñëw ñu jàngal lu ñuy. kon nag France wala beneen réew du ñëw di ñu jàngal lu ñuy yore suñu réew. ñun tam am nañu lu leen doy. ñoom am nañ lu leen doy. jàmmu lañ leen yéene jàmm lañ leen yéene. respect la ñu am ci ñoom respect ñu am ci ñoom. yàllaa leen bind bind ñu. leen bind bind ñu. waaye lu ñu am tey. waaye lu ñu am tey ñoom. fii lañ ko jëlee fii lañ ko jëlee. kon nag ñun. war nañu mën a takku taxaw ñun war nañoo mën a takku taxaw. jàmm rek di am suñu jàmm rek di am suñu diggante. bu ñu leneen jaral. bu ñu leneen jaral. bu ñu dara jaral. bu ñu dara jaral. France war a ñëw. France war a ñëw. di ñu dicté di ñu dicté. ni ngeen di doxalee ni ngeen di doxalee. ni ngeen war a xool ni ngeen war a xool. ni ngeen war a mel ngeen war a mel. ñoo lank ñoo bañ ñoo lank ñoo ko def itam. duñ ko def ndax lu ñu am rek ñoom. ndax lu ñu am rek ñoom. ñoom fii lañ ko jëlee ko jëlee. tabarakallahu ñu baal ko wax lu may kàddu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu